Sebab mungkin cipunin suka di kau yang mulia Sebab mungkin cipunin suka di kau yang mulia Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin والصلاة والسلام على منبع العلوم والأسرار سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين mbokki انترنتي yi rawatina بر ñi سين بدي seen bi di RTV Dakar ñi ngi dellu siwaat ci seen émission bi ñu tuddee njëriñu alquran ngeen koy am mardi bu jot ci biir chaîne bi di RTV Dakar di si ànd seen mbokku Sall Omar mu mel ni tey nag dañu ñëw ci wallu tukki ak koo xam ni dafay lijjanti këyit te mu jafe ci moom moo xam këyit ya nag këyitu lu mu doon moo xam visa la wala ay këyit la yu mu déposé jot sa tëkko waaye yooyu yëpp incha allahu suñu delloo ci biir alquranul karim fekk fa yu nga xam ni dina ko mën a jàppandal waaye dañuy wax ni nag tukki balaa nit ki di dogu ci di ko def war naa xool ba xam moom warna tuki tukki wala warta tukki ndax du nit ñepp la yalla bindé seen wërsëg nekk ci tukki motax tax léeg nga gis nit ñu nga xamni dañuy daj lu ne ba génn tukki waaye dañuy mujj di ndax coono yañ cay jànkonteel te lam leen di jural ci ay njariñ du bari loolu nag nit ki war na cee bàyyi xel bu baax bala moo jóg ak itam bépp réew bu nga xam ni yaa ngi jóg pour wutali ko bala nga caa demit war nga xool ndax réew ma dëppoo na ak sa tabia wala dëppoowul ak moom su ko defee yooyu nag su fekkee ni am na su nit ki jógee su demee yàlla mën na def mu amee la nga xam ni moom lay sàkku su ko defee ñu ñëw nag ci li nga xam ni dina jàppandalal nit ki ci kaw su fekkee dafa bëgg a tukki wala mu bëgg wërsëg wu yaatu ca tukkeem ba wala sax fa mu nekk di fa yëngatu ndax léeg-léeg nga gis nit ñu nga xam ni dañuy daj lu ne ci lijjanti pour tukki waaye dañu cay sonn te duñu ca gaaw a am lañu bëgg loolu nag dafa am nit ñu nga xam ni ñoom seen tabia moo bindoo noonu te moo di mbir mu ñuy sàkku mbir ma du yomb waaw bala ñu caa jot danañ ca daj yu méttee métti ndax tabia yi dafa bokkul waaw amna ñu nga xamni nak seeni mbir fay jappandi da fay yombu lolu yepp mi ngi dépendre ci tabia doomu adama yi ndax ñeenti tabia yi muy diggante ndox suuf safara ak ngelaw bu ci nekk dafa am yoo xam ni la àndal Euh, képp ku nga xam ni nag dafa bëgg a tukki te di lijjanti mu xaw a jafe ci moom mu bëgg yàlla defal ko ca ak jàppandal moo xam ca këyit ya la wala dafa bëgg su demee yàlla ubbil ko fa ay buntu xéewal na fexe ba def li nga xam ni moom lañuy wax te bu nekk ci biir alquranul karim euh, bi ci njëkk mooy nit ki dafay bind càngaay bi nga xam ni moom lañuy wax su ko defee mu sangoo ko ci diiru juróom ñaari fan waye it suko ko defar ndomba mu takku ko ci ndigam insha allahu rabbi suko bolé ak rew ma nga xamni ci la bëgg dem ci katanu yalla dana fa dem ta kenn du ko mëna galankor euh saafara bi nak ay aayay alquran la yu and ak fatihatul kitab ginnaaw bu basmala jàlle boo defee alhamdulillahi rabbil alamin da bind laa tudrikuhul absaar wa huwa absaar wa huwa latiful xabir su ko boobu moom ngay teg ci aaya fatiha bu njëkk bi soo paree bind arrahmaani rahim muy ñaareelu aaya fatiha nga teg ca inna rabbi latifun lima yashaa'u innahu huwa alimu al muy ñaareelu aaya nga bind ñetteelu aaya fatiha muy maliki yawmi diin nga teg ca alam tara anna allaha anzala min alsamaai maan fa tusbixu al muqdaratan inna allaha latifun xabir aaya boobu moom ngay teg ci ñetteelu aaya fatiha muy maliki yawmi diin soo paree nga bind iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nga teg ca aaya bi may wax te mooy yaa bunayya innaha in takku mithqaalu habba min xardalin fa takun fi saqra aw fi samawati aw fi ardi yaati biha allah inna allaha latifun xabir su ko defee moom ngay teg ci ñeenteelu aaya fatiha muy na na'budu wa iyyaka nasta'in soo paree nga bind ihdina siraatal mustaqim nga teg ca wazkur wazkurna maa yutla fi buyutikunna min ayatillah wal xikma inna allaha kaana latifun xabir nga teg ko ci juróomeelu aaya fatiha muy ihdina siraatal mustaqim nga bind siraat allazina an'amta alayhim daa di cay teg allahu latifun bi ibaadihi yarzuqu man yashaa'u wa huwa alqawiyu alaziz sooga nag bind aaya bu mujj ba ca faatiha muy xayril magdubi alayhim wala doolin amin nga teg ca alaa yaclamu man xalaqa wa huwa allatifu alqabir su ko defee aaya yooyu nga xam ni moom laa wax moom ngay jaxase ak juróom ñaari aayay faatixa yi comme noonu ma ko waxee noonu nga koy bindee ba mu yegg soo paree nga teg ci xaatim bu màgg bi nga xam ni dinañu ko wane ci écran bi ngeen gis ko ginnaaw boo bindee faatixa bi ba mu jeex jaxase ko ak aayaat yooyu xaatim bi ngay teg ci suufam su ko defee soo paree nga tëj ko ak salaatu ala nabil ummi euh, soo paree loolu nag ngay def saafara nga def ko cangaay sangoo ko ci diiru juróom ñaari fan yow mi nga xamante ni danga am yéene tukki bëgg tukki tamu jafe ci yow moo xam jafe-jafe ba ci ay këyit la wala ay liggénti la yu nga xam ni sottiwul incha allahu yàlla dana la ca defal ak jàppandal euh, su fekkee ni nag bind nga saafara boobu ba noppi Euh, boo koy sangoo ci diiru juróom ñaari fan yi saa soo sangoo ba génn dangay saraxe lu weex waaw bis bu nekk dangay saraxe lu weex moo xam loolu suukar lay doon walla mu nekk ceeb waaye daal ala kulli xaalin dangay saraxe lu weex te danga koy booleeg di zikr euh, seize mille six latif muy am xawiyu latif bi nga xam ni waxoon nañu ko waaye dinañ ci ñëwaat ci ay njariñam euh, muy seize mille six cent quarante et latif danga koy booleeg cangaay bi ci boo koy sangoo moo tax su fekkee ni euh, nit dala ko bindal su ko defee moom dafay booleeg di la zikral am xawi yu latif muy 16641 latif niñ koy zikree nag mooy dañ koy séddale ci euh, salawaatul xamsa yi muy juróomi waxtu ginnaaw bi nga jullee suba ba noppi da ngay def 3300 28 latif julli tisbaar def 3328 latif julli tàkkusaan defaat 3328 latif boo jullee timis defaat 3328 latif soo jullee gee def 3329 latif su ko defee loolu noonu nga koy zikree ci bis bu nekk ci juróomi julli yi su ko defee bis bu nekk yaa ngi am am xawiyu latif ba ba ngay matal cangaay bi muy juróom-ñaari fan yi dimaas nag nga koy tàmbali waaw bis bu ne nga zikkër lii mu wax ba muy juróom-ñaari fan ku ko def euh, danañu ko soo bëggee tukki waaw ku ko def dana dem su dee kuy sàkku wërsëg yit dina ko am incha allahu rabbi su ko defee loolu benn la ci yi nga xamante ni dana dimbale nit ci wàllu tukki euh, wala yit ku nga xamante ni dafay sàkku ay këyit te mu xaw a jafe ci moom moo xam visa la wala kayit yu mu mën a doon moom itam na ko defee comme noonu ñu ko waxee euh, ba tey bokk na ci li nga xam ni dana dimbale nit yombalal ko ay kayit yoo xam ni daf koy sàkku euh, muy aaye ji nga xam ne moom la ñuy wax moom ngay bind ci limu soixante muy juróom ñaar fukki yoon benn bi danga nga koy takk ñaari kayit nga ciy def su ko defee beneen bi ci des nga bind ko moom it su ko defee sangoo ko aaya ji nag mooy gannaaw bismillahi rahmaani rahim da ngay bind fa sawfa yu bu xisaaban yosira fa sawfa yuxaasabu xisaaban yasiran su ko defee noonu nga koy bindee ba muy juróom ñaar fukki yoon soixante-dix di adadu kun su ko defee soo ko bindee nga defar ci ñaar benn bi nga takk ko benn bi nga daldi koy def cangaay sangoo ko moom it ci kàttanu yàlla su fekkee ni ay këyit nga doon lijjanti te mu jafe euh, su fekkee utiliser nga ko comme ni ñu ko waxee incha allahu balaa yàgg dara da nga am ak jàppandal ci loolu nga xam ne yaa ngi ko doon sàpp kon fa tabaarakallahu mbokk yi loolu lañu leen doon baaxe tey ci seen émission bi di njëriñu alquran muy lu aju ci wàllu tukki ak ay këyit yu nga xam ni nit ki dafa koy sàkku incha allahu ci émission yi di ñëw ñi ngi leen di jaan ngeen bàyyi ko xel ci seen seen bii di RTV Dakar dinañu ñëw ak yéen ci wàllu soxna yi ñi nga xam ni euh, lu mel ni am borom kër dafa leen jafe euh, wala it lépp lu nga xam ni dafa aju ci côté boobu incha allahu dinañ ci ànd ak yéen mbokk yi nga xam ni it ñooy laaj secret ci wàllu yasin incha allahu ci vidéo yi di ñëw danañu ci ànd ak yéen ci ay secret ci suuratul yaasin yu nga xam ne yu ama am solo la te mën a dimbali nit ki ci wàllu aajo kon daal ñu ngi leen di jox rendez ci beneen mardi incha allah ci seen chaîne bi di RTV Dakar wasalaamaaleykum wa rahmatullah del tek telo dara dore te jumal liya raja la fi wa tin kasata wa ul del tek telo dara